salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañu leen yéen ñëpp ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant comme d'habitude képp koo xam ne ni nag abonné go suma chaîne YouTube bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di seetaan suñuy vidéo loolu ngeen ñu mën a soutenir ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox matin midi soir te nag dañuy wax ci benn sujet bi spécial tey suba boobu ba léegi ñëpp a ciy wax muy lan abi Beye dañ ko woo bu ko équipe ko bëggoon a jël. mu bañ lànk ba ci suuf et tout am information yu te quoi nekke loolu mën naa ni commencement ba fin du dëgg ki génnee loolu muy journal l'équipe sont des français gis nañ sax jamono ji ñuy def benn campagne di political kan Hervé Renard pour mu ñu équipe nationale Sénégal dinañ ci ñëw ci yeneen i vidéo waaw on peut que peut-être c'est ça leur objectif c'est pas xaw ma nu mu demee noonu ba tax. Euh, ñu bëgg jaxas jaxase Habib Beye le public sénégalais Habib Beye et tout fekk na ne man je sais tamit bel et bien jeu bi nga xam ne fédération mu koy def dinañ ci ñëw détaillé leen lépp lépp lép yéen dara du leen raw maa ngi doon indi yéen ñenn ñu bëri ñu ma doon interpellé TikTok Instagram ma paasal la mu tax waxoo ci dossier Habib nga xam ne équipe nationale Sénégal da ko woo mu bañ li tax waxaguma si woon amaguma woon lu leer lu ma ci wóor moo taxoon balaa ma leen jox dara dama koy seet seetaat ko ba mu leer nañ ma tegal leen ko ci taal bi loolu ngeen tàmm ak man moo tax du ma tegg yoon boobu jo yàkkamtee joxe information du tax ma joxe loo xam ne nii aajowul maanaam par da koy joxe ñëwaat génnaat am ci gàcce ci noonu nag lan jël càmbaraat xool xool mbiri demoon nañ ba ne dañuy def vidéo sax ne du ci waxagum nañ xaar ba Habib Beye ndeyu mbir li nga xam ne moom dekk na consultant canal am na ay réseau bu déggee li ni mel bu dul dëgg dina génn démentir ko bu dee dëgg la nag dina tekk baa mu expliquer li tax mu buggul ñëw équipe nationale Sénégal mu ngi noonu te bu ko bañoon sax duñ ko ko bañal. dañ ko koy nangul nag am na ay conviction am xam na lu tax demul ak lu mu war a dem ak ñoom seen mu ngi noonee. Habib Beye daal moom ndayu mbilli gi ba information bi rotee moom génn na ba am ku mu doon waxal WhatsApp mu laaj ko ne ko coach gis nañ ne équipe nationale Sénégal da la def offre nga décliner offre bi lu tax loolu. Habib Beye tontu ko ne ko ba léegi kenn approché wu ma amul benn offre bu ñëw équipe nationale Sénégal fédération kenn approché wu ma loolu la génn leeral ko WhatsApp boobu nag moom lañ fuité mu génn pour leeral que ni Habib Beye la information bi génn depuis suba amul tey amul ëllëg jeu bi nga xam ne fédération sénégalaise de football mu ngi koy def li taxoon coûte que coûte mu jël ñu jël euh, Pape Thiaw def ko adjoint Aliou Cissé bëgg lu yomb adjoint Aliou Cissé hmm, waaw ñoom xamoon nañ xel que ne Aliou du toogaat ci équipe nationale Sénégal ñoom xam nañ ko. dañ doon ruumalaat rek di gëlëmal sénégalais yi bëgg a jaxase euh, waaw ma on peut on peut dire am bëgg ne sénégalais am ñëwantal ci Aliou euh, ci waa jaxase euh, peut-être on peut dire réaction maanaam li nga xam ne ministère bi def na ko pour ne leen Aliou mii du du toogaat fii bëgg na indi ñëwantal indi jiixi jaaxam mais depuis bañ leen defee première annonce bi defal leen papier boobu si lañ waroon xam xel xam nañ xel la que ne ki dootu fi toog mais defuñu ko dès le début dem ba sacrifier daanaka on peut dire Aliou. bàyyi ko public sénégalaise bi ñu koy xasaka saaga ba ker baak ñu koy xalab ba niñ ko bàyyee mu dem amuñu benn hommage bu ñu ko rendre ak ñoom sa ak lim def ci équipe nationale Sénégal loolu yëpp man dama jàpp ne ñoom seen liggéey la jël Pape Thiaw teg ko fa xam na xel ki ni Aliou dafay dem pour mu doon intérim gérer bu gañee deux premiers matchs yi ñu ne ah Pape de def na performance am toon ñu ko ñu ko ne ànd ak moom ne Pape moom lañ fi finalement teg mu gérer continuer bi et tout mu ngi noonee on a Pape Thiaw duñ ko bañal dara sénégalais lañ ñëpp. mu ngi def ay jalo mu ngi def góorgóorlu quoi jël na chan bi mu ngi noone mais boo xoolee par rapport ak ak yeneen coach yi nga xam ne nekk nañ fi positionné pour jële équipe nationale Sénégal on peut citer Malick Daaf nga xam ne coach local la rek nga xam ne jël na Sénégal coupe coupe du coupe d'Afrique U20 UFOA coupe d'Afrique U17 jël na ko dem coupe du monde ak U20 yi jaloore yi mu jot koo def jël jaraaf yóbbu ko deux fois ci coupe CAF yóbbu leen match de poule Malick Daaf tout ce qu'il a pour le football sénégalais il méritait vraiment place bi nga xam ne man jàpp naa ni fa la kookee di Pape Thiaw nekk bu ñu waxantee dëgg rek waaye yamaatuñ foofu yaa Omar Daf et Habib Beye qui sont présents te it ñoom bañuñu ñëw équipe nationale Sénégal pare nañ pour ñëw équipe nationale Sénégal ci bu ñu leen tegee ci conditions yu leer nañ tegu ci temps mais pas dañoo bëgg a ñëw rek ñu jël leen bëgg leen a sacrifier ci noonu duñ leen fay lu ko ma ko jar ba pare tegu ñu leen ci conditions yu bien tegal ñu leen projet yoo ne dal na xel buñ nanguwul sénégalais yëpp dal seen kaw alors que ñoom ñoo leen tegul ci conditions yu tegu ci temps actuellement ñooñu ma leen limal ñëpp bu leen jël équipe nation yi di jël dañ leen teg ci condition yu normal mu ngi noone man bu ma demee bu mënumaa am abi bu mënumaa am Omar Daf ak Habib Beye man je préfère am Malick Daf Malick Daf sax ma am ko non mais man ça me rassure ça me rassure mu ngi noonee en tout cas daal noonu laa gisee mbir mi ma leen xaar ci commentaire yéen nangeen ko gisee bu doon loo xam ne jot na fi am tey ci suba ins bi képp koo xam nag abonné ko suñu bu ko taay c'est le bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu ma soutenir ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa ngeen jëf